voilà de euh, l'entame de notre émission Sanoum jotoon euh, lim ñi nga xamante ne ci ñoom la nar a wax tey dama koy bàyyi donc mu développé li nga xamante ne jot na ko wax sànq Sanoum. xëy colonel euh, damay attaquer directement si euh, Balla Gaye 2 mm-hmm. dañoo nemmeeku ne. ñii di ñaari soxnaam yi di Boury Bathily ak Léna Gueye dañoo nekk ci defante bu métti maanaam Boury xëy na posté benn snap def vidéo teg benn son def say délire ñu toog quelque temps gis ñaareel bi aussi def la même chose léegi nag internautes yi nee nañ kii di Balla Gaye comme mooy seen kilifa wax na jug ci ñaari soxnaam yooyu parce que seen vie privée bi ñuy jël di ko génne ci réseaux sociaux yi ku ci nekk di wan sa moroom maa la maa la mën wala maa la gën a jege sama jëkkër rafetlu ko loolu waa Dakar Buzz ñu ko xam ñoom ñaar seen yooyu ñuy def mhm. nañ ko defal seen jëkkër ci seen biir kër mhm. parce que dëgg la mhm. euh, dafa am yoo xam dafa laaj sutura sutura sëy sutura la di wane ne man maa am kii waaw xam nga looy wane da ngay wane ca biir ngeen séq ko yéen ñi ngeen dem parce que c'est dangereux euh, Facebook ak WhatsApp ak ay yooyu yëpp fi muy dem day dem et puis baaxul làmmiñ ni day daw làmmiñ c'est tellement dangereux comme ni ñu ko waxee tamit Balla Gaye wax na toogaat xool euh, gis nga euh, maanaam euh, sëy kenn du ko piipal sëy kenn du ko piipal sëy bañ nañ ba nga xam ne affaire wu sutura la yéen ñaar yéen ko seq di wane ne man maa aay na nga ko wane foofu. mais coach également jusqu'à preuve du contraire mën na nekk loo xamante ne dafa tombé c'est-à-dire euh, en ce moment ñëpp leen teg bët. peut-être def na snap nekk ci oto di waaye après keneen ki def na mën naa mën naa même deuxième bi ko def xamul woon ni première bi def na ko en ce moment ñëpp leen teg bët mariage bu ñu dem ñoom ñaar nekkandoo fa wala sëru kii ak euh, euh, wujju wujju keneen ki nekk fa les gens vont se dañ nekk di defante alors que peut-être c'est même pas le cas. dafa lay yëg faut pas Euh, boo nekkee homme public. képp ku bokk ci yow. képp ku bokk ci yow. dafa war a tamit euh, am sa comportement am comportement homme public. mooy la discrétion. parce que li ñu mën a takkal dafa gaaw. homme public la kon nag muy moom déjà. est-ce que discrétion war na leen empêcher ñu continuer de vivre aussi non non non non mais lépp na nga ko def. dégg nga sans nga def yenn yoo xam ne day tax ñu génne la. Euh, donc euh, foofu lay jàllee dem si ami collè euh, ami collégien ginnaaw bu ñu amee problème si ojo bi mu doon def jëmale ko si président de la république ñu gis ay moromu artistes yu bëri yoo xam ne ñëwoon nañu pour jàppale ko ànd ak moom ci li mais kii di Mamadou Sy Tounkara def ne moom ami war woon nekk benn yoon prison mais plutôt dans un cours d' éducation civique pour mais malheureusement amul fii si suñu réew Dakar ñu ko man de damay euh, euh, man de damay ànd ak Tunkara parce que am na yoo xam ne boo ko xamee am na wax yoo xam ne doo ko teg ci njiitu réew mi dañ waxal même bu dee kii yow nga ne kii deful li wax waaye wax am na moo yoo xam ne doo ko teg ci njiitu réew mi. mais est-ce que du woon

wa mot bi mot bi mu utilisé moom moo doy waar c'est que loolu doo ko teg yow sax yow exemple dama man mii tey man tey yow boo ma ne woon saay-saay nga non damay gis sam bopp. même ci kaf sax da sa bopp. au nom de mais mais est-ce que xam nga loolu non mais attends bi mooy lan mais attention c'est grave loolu laa la moo doy waar mot bi yow boo ko boo ko. mais coach est-ce que saay saay saay bu nañ ko mënul signifier yow doy nga waar de genre. déedéet bu leen koy gis nga bu leen jël kii no ah boog man boog peut-être nag man maa déggul wolof. nañ ko ci dictionnaire wolof bi rek man kon nag man maa déggul wolof parce saay saay. saay saay xam nga man saay saay nag laa ngi jëlee. mais yéen man c'était pas. dégg nga saay saay saay saay lan ngay définir saay saay saay pour moi coquin malin. malin koo xamante ni muus na nga ne ko yow saay saay nga te ngeen da ngeen koy dégg dégg y a plusieurs définitions au sens propre du terme waaw non non attends c'est que moom li mu wax li mu wax yow saay saay nga dégg nga deux fois da ngay gis euh, maam ñëw ne la ah, xale bi mooy saay saay ci kaf voilà ci kaf mais non am na nag am na noo xam ne nag yow mag mag mag yow sañ nga dem taxaw ak mag ne ko saay saay nga. boo ne ko saay saay nga sañ nga ko yow. kan man waaw bu baax. ah déet non mais yow tamit. xaji colonel ma tëjee ko ak drame bi amoon stade Demba Diop ba euh, amoon huit morts dañoo seetlu ne fan yi dañoo arrêté di di supporters bu union sportive de Wakam. ginnaaw bi leen arrêté nag. autorité yi nga xam ne ñoo dëkk fële ci Wakaam dañoo daal di amal benn conférence de presse démb à 16h ñuy ñaawlu la fekk ñu jàpp supporters yooyu la parce que nee nañ du Euh, waa Mbour yi gaañu ndax mur bi moo daanu seen kaw donc waruñ jàpp euh, supporter yi euh, Wakaam yi daal di leen tëj ndax vraiment du ñoom ñoo causé oh, loolu mooy maanaam par rapport ñu jàpp seen dañoo jàpp sax benn joueur ci joueur yi ak président supporter yi bon c'est vrai. Mm-hmm. parce que comment sanction yi mu ngi commencé daal. sanction sportive et je pense que at nañ leen ah. waaw waaw ak amende dix mille loolu mooy loolu moom mooy sanction dix mille euh, dix mille euh, kii non waaw waaw du dix waaw dix voilà waaw même euh, bon léegi nag sanction pénale yi mooy commencé ah. parce que loolu comme que kii mais man li ma ciy wax rek dama la lu waxaat je dis et je redis dans cette affaire là sanction yi bu mu yem rek ci waa Wakaam bu ñu ko mm. defee injustice injustice la je le dis et je le répète bu dañ koy yemale rek ci waa rek non loolu te teguñu ko fenn teguñu ko yoon parce que avant que waa Wakaam di euh, xeex am na li xew li xew moo indi loolu parce que am na loo xam ne bu ñu jëloon ay matukaay yu am solo kon loolu du am maanaam foog ñu remonter ba ci njiit voilà il faut que ñu xoolaat waaw voilà waaw xam nga daa sanction morale day am na sanction morale am na nit ki waaw yow nga sanctionné sa bopp sax. en tout cas ñun doon nañu xaar au moins am dirigeant yoo xam ne dinañu euh, jël dogal ci ne dañuy tekki seen ay ndombol tànk. mais loolu moo waxoon na nekk donc euh, moor doom la li may waxaat dama koy waxaat moor doom. Mhm. bakkan dafa fort huit ñuy toog nii rek di xool di campagne di continuer di naan dañuy dem élection. et puis c'est vrai après campagne lañ ko commencé. li jënd dégg yooyu nañ ko bàyyi. Mm.